te yow ñetti nit topp la buñ la ñaax li kenn doon wax dañ naan coppet man mi ñu doon wax de yàlla mayoon na ma asut ba saaj ma ne woon coppet réew mi jaxasoo waaye tey am na ñu fi ne coppet dara yëngatuwul kon nañu téy ta dal nañu téy ta dal. soit avec sa majorité que la majorité n'est pas euh, malheureusement euh, craquelée da ngay jël sa présidence assemblée nationale da ngay jël poste poste premier ministre. le premier ministre est nommé par le président de la république qui décline et met en œuvre la politique du gouvernement. mais à mon majorité kan ngeen nommé non, hein? ah nooy def majorité. Ah, non bon seetloo. dama même en France. Demain. Euh, Macron n'a pas la n'a pas la n'a pas la majorité. bon ok sur le nez, neexee ma defee ko neneen. bon nous ñu am suñu majorité. nga nekk ñun dañu toog primature du non. waaw ah, d'accord. budget bu ngeen indi ñu ñu rejeté ko ngeen wax ñu fan ngeen gouverner avion du naaw auto du daw salaire duñ ko vous n'avez pas de majorité vous ne pouvez pas exercer le pouvoir. Bref, gars. vidéo bi dana bë dana bokk ci vidéo yi nga xam ne man maa leen koy ñaan ngeen partagel ma ko ba waa àll beeg ñëpp jot ci. Naby Vision. jaar naa leen patriotiquement man nii laa commencé sama campagne dama leen di won li nga xam ne moom mu jikko opposition bi opposition bi naa leen xamal benn affaire lenn moo leen intéressé xam nga muy lan muy naka la ñuy defee ba jël Ousmane Sonko réduire ko am miettes jël ko teye ko ne ba du tekket dara ci dëkk bi loolu rek moo leen ñor Sénégal ñoru leen jafe askan wi ñoru leen ñi nga xam ne seen doom yi dañoo dee ci li nga xam ne moom mooy manifestation ñoru leen dund bu cher bi ñoru leen dara ñoru leen ñoom nañu nekk ci li nga xam ne moom mooy tey naka la ñuy def pour méttital les patriotes ak méttital Ousmane Sonko te xamuñ ne carrément Ousmane Sonko mooy Sénégal bi lii mooy seen métier kese bëgg a dem assemblée nationale teree liggéey li nga xam ne moom mooy le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye kese projet bi yi nga xam ne la ñuy teg ñoom xam nañ nekk carrément bés bu tegoo ci yoon ba son Sonko am majorité à l' assemblée nationale te incha allah rabi da koy am mooy que Sénégal dana jóge ci ay tànk système ba dem ci beneen système boo xam tey instant bi toll nii tey luy suqali Sénégal lay doon te ñoom ñii tey instant bi nii seen vie politique dafa menacé wu déglu leen ma bu a baax ñoom xam nañ ne instant bi toll des retraités politiques parce que ci système bi la ñu bokk système bañ doon dund moom la Ousmane Sonko ñëw daane rey ko ba mu dee wet léegi nag ñoom instant bi nii seen problème mooy Ousmane Sonko mais seen problème du Sénégal kon gars partagé leen ma vidéo bi ba gars yi dégg li nga xam ne moom la Tooy Dias wax te bari na ci ci opposition moom ngeen gis mu wax mais am na ñeneen ñoo xam ñu ngi wax ci suuf lu gën a lii. Naby Vision. la ñuy def tey ba instant bi ñu toll nii daaneel le gouvernement de Seydina Ousmane Sonko ba du gouverne ba ba yi duñ gouverner si seen ci jàmm kon gars yi bàyyi leen ci xel bu baax a baax nga lii ma leen wan nii mooy spécimen bi liste bu baax bi mooy list Pastef bi te instant bi ñu toll nii Seydina Ousmane ñu ñuy fal fal nañ ay maire fal nañ fi ay député mu fal fi président tey moom moo ñu laaj te laaj bi ñu laaj nii laajut pour mu nekk loo xam te instant bi moom da koy jëlal boppam de déedéet da koy séddalewaat njabootam laaj bi mu laaj da koy séddalewaat njabootam parce que député yooyu noonu ci njabootam la ñu bokkaat kon amagul lenn lu mu laajagum loo xam ñu jox nañ ko loo xam da koy jëriñoo kon kii buñ ko mës a wor nañ ko jox majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour Sénégal jëm kanam genre béyee. ak ci mes amis patriotes mbir mi débat bi ak euh, discours yi bu mu varié nii ah. te euh, yomb naa expliquer surtout nag sunu yi nga xam ne jànguñu. waaw waa opposition bi ñoom wax nañ leen lu leer nañ à travers Barthélémy Dias nee nañ dañoo soxla majorité pour bloquer réew mi pour tas réew mi waaw am na fu ñu ko teg nag fu ñu ko teg waxoon naa leen ko ci vidéo yi passé milliers de milliards yi ñu sàcc denc ko ñoom jàpp nañ ne fii ak 10 ans duñ xiif duñ mat duñ rafle loolu tax xam nga ne sam réew nga ne naa wut majorité pour bloquer ko loolu léegi leer na jërul ngeen di wiri wiri gi jaar neuf nan ay projet ay 2050 mille cinquante nag expliqué leen leen maire yi ak seen paa yi ñu dégg ko bu baax a baax a baax ñoom ñoo wax mu leer nañ tegal leen vidéo yi ñoom Barthélémy Dias ak ñeneen ak liñ jotta def waaw buñ buñ ñëwee nan ay nangam nangam opposition ñew di taxaw di wut di wut euh, majorité assemblée nationale bu fekkon na tay nangu nañoo collaborer bëgg nañu réew mi duñ ko tass ndax bañ fa nekké luñu ñu nangu jomaay bëgg wata ñu bañ ko kon mbir mi leer nañ dañuy wut majorité ñom pour bloquer réew mi

créer instabilité dans ce pays l'homme est état mo sa responsabilité Donc te xamné ne Pastef bu dee gatsa gatsa ñoko ko ñep parce que l'on fi jëlé Macky Sall mais c'est pas le rôle des militants de passer di génn di xeex ci mbedd yi des suñu ko défé campagne di kenn dootul sax parce que ni dañuy tiit kon no police ak gendarmerie jël sen responsabilité ce fauteur de trouble là qui s'appelle Barthélémy Diaz dañ ko wara a place am parce que mon Sénégal ba koy bayyi mais dans ce pays il fout le bordel partout où il passe parce que ce qu'on a vu hier c'est un bordel Barthe Diaz moy kan ba lu ko neex mu def ko dans ce pays parce que c'est un opposant soko jappé société civile bi génn nan waaw da ngeen ko wara a liberté d'expression non mais come on ki dafa état mo wara a jël ses responsabilités gis ngeen ni Abass Fall wax démb mais mo yay wax ko parce que mënoo yor say militants war leen aar protéger leen ngeen def campagne en toute sérénité mais nit ñew dal sa kaw demb gis ngeen siège Khalifa Sall bi tal nañ ko. Naby Vision. parce que bo ngeen duggee confrontation ci parce que du leen jig parce que wu leen mu dem recruter ay bandem Dakar ñëw di foutre le trouble na yoon def liggéeyam police gendarmerie jël leen seen responsabilité parce que loolu moo aussi ñu teg leen fi mais ce Barthélémy Diaz là c'est pas un cas na bàyyi nit ñi ñu campagne normale parce que bu wootee gat sa gat sa bu ñu ko ci fekk see mais du ko il n'a ni les moyens ni les militants pour le faire il recrute des bandits loolu laa amoon lu may wax mbokk yi. mbokki patriote yi maa ngi leen di charé wat bu baax te di leen bëgg te di leen ñaanal jàmm. Premier jouru campagne bi dem gis nañ ni mu déroulé alhamdullilah sant yalla bu baax dal na xel te pro mi ngi wax ñing koy dégg yalla ñu yalla défal jamm motax na gis nga risim bee mom giñ ñaat yalla liñ fi def yépp chaque jour muy bees sa nopp bu yagge yow da ngay daanu karjaak nga dé dem bar da ngay dem bar sax quoi parce que liñ fi def chaque jour ay ngay dégg ay scandale yu bees jaay bay jaay prix soo di jaay bay jaay cap manuel mais señ bi ñun ba aduna bëggut a tukki ñun gaay nañ leen focus ci la 17 ngir doggu li ñële ndax ray nañ leen ba paré nañ leen leen doggu li ñu dem rendre compte sénégalais yi fu ñu dugal Sénégal bi wax fu ñu dugal sénégalais li mo fi dess ci ab liggéey képp ku bëgg réew mi di ma dégg fépp foo mën a nekk boo gul sa carte d'identité demal nga pare fitoo nga jëli sa carte d'identité te pare pour voter ji fépp foo mën di nekk boo nekkee Dakar dëkk fongoli limi daggal sa yitte yépp nga dem voter ji ci kattani suñ borom massivement dem ñëwaat jar na ko yàlla yàlla defal jàmm defal ñu aafiya pro yal na yàlla defal ko jàmm dama koy xool di ko yërëm di ko am di am ñeewante ci moom barke alxuraan dafa sonn. Naby Vision bëgg réew mi di daw guddeeg bëccëg ngir réew mi sonn. parce que bi ñu jógee ci élection yeeg léegi dafa yàggaatul te campagne ku ne xam na ne ni mu méttee te ak xoolal yéen a jëm ciy demee ànd ak patriote yi bëgg réew mi fépp fu mu dem gars yi génn en masse gars yi yal na yàlla defal ñu jàmm. majorité absolue rek majorité écrasante biir assemblée nationale mën na nekk yàlla nañu ko yàlla defal barke yàlla man bu kenn bàyyi lépp lu waay xam ci lu baax. lu ñu mën a may ndam génnal nga teg ko ci table yàlla suñu borom may ñu ndam lu seddu guy am nañ ci yaakaar nag parce que démb ni ngeen xaaja réew mi kenn ku nekk Guy Marius Sagna nga fee maire Ami ma nga fee Abbas Fall ma nga fee bi pro ma nga jaar fee non affaire bi démb ni mu déroulé loolu laneen la yàlla na yàlla xeb te defal ñu afiya bu baax lida seti li desati bariwul ay jàmbaar ngeen yéen patriote yi depuis 2021 ba la yéen a ngi jàpp xoolal benn taabu ndaw moo ñu dese ci kàttan suñu borom ñu collecté lépp sëpp jox gaa yi ndam li toog di leen déglu di leen xool yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu afiya bopp te kenn ku nekk acte patriotisme rek moo tax nga koy def ay jàmbaar ngeen jàpp rek bañ a bàyyi ci kàttan suñu borom yàlla defal ñu jàmm sidna Ousmane Sonko yàlla defal ko jàmm yàlla defal ñu jàmm barke yoon ci may ndam ñu sedd guy barke Muhammad